alxusu sangu moom taamimul jasadi mooy matale yaram bi bil maayi ci ndox sangu daal li muy firi yaram bi yëpp laal ndox noonu la baat bi di firi ci arab bi niyete rafil xadasi ci yéene yëkkati toj al bari bu mag nga yéene ci yëkkati toj li ibaaxati maa ngir daganal la nga xam ne manaaw tere na ko alxada su toj mi mene ibadaat ci jaamu yàlla da nga li nga xam ne toj def koy aaye jaamu yàlla yi nga xam ne boo tojlee doo ko mën def boo yéenee yëkkati toj pour daganal ko rek sangu mu baax maanaam liñ la waxoon moom nga yéenee ci jàpp moom nga yéenee ci parti fas naa ne sangu pour jaamu yàlla rek baax na fas naa na daganal tere woon tere nañ la julli tere nañ la dugg jàkka loolu yëpp boo sangoo kon boo sangoo yéene loolu rek baax na waqat sharaahu yoonal na ko allahu yàlla tatxiiran ngir laabal li badanil mumin ñeen yaramu julit wa qalbi ak xolam yàlla dafa santaane sangu ngir julit bi yaramam mën a laab xolam mën a laab parce que nit xelam du dal sangu bi mën naa tax dal mu xam ne moom set na hmm. yaram bi tamit dana set waaye bu fekkoon ne sangu janaa ba amut xamaa dafa am na ñoo xam ne duñu sangu lu bëri daa ragal ndox nag <laughs> daa ñoo xam ne duñu ragal ndox loo ragal ragal ndox moom nit moom bu amee janaa dana sangu ci kon mën naa laa war yaram fexe mën naa tax nit nit ki nga xam ne mu ngi yëg eh. ne lii sobeeg maanaa la bu sangoo xelam mën a dal wëttan ci itam ak sawarloo li aadaay ñeel cëram sang bu dafay sawarloo cër boobu nag ni muy sawarloo cër docteur ñoo si gën a mën a xam dara wa tarwiyan ak noppal li nafsi ñeel bakkanam dafay noppal bakkan loolu nag képp ku sangu rek xam ne sangu dafay noppal bakkan yii moo yàlla ko walil xusli ñeel na sangu muujibaatun ay farata muujibaatun yu koy waral walil xusli ñeel na sangu muujibaatun yu koy waral wa faraidu ak ay farata wa sunanu ak ay sunna wa ahkaamun ak atte yoo xam ne taxtasu dana jago bii ci moom sangu am na ay farata am na ay sunna am na yeneen atte na it yuy tax nit ki war a sangu amma mujubaatuhaa tuur waaye la koy waral fa xamsatun juróom la mu njëkk jàngal nag liy tax nga war a nit ki war a sangu ci ana lan mooy tax jurit bi ñu ne ko sangul mu ne bu ci njëkk xurujul man yi mooy génne man yu bi lazatin ci bànneex fi naw mi ci nelaw aw fil wala ci mooy ñàkk nelaw man yu bu génnee te bànneex ko ko génne moo xam borom day nelaw wala nelawut dana sangu jàppal ne mën nii bu génnee ci lu dul nelaw faw mu génn ci bànneex buñ ko baaxoo pour ñu door a sant kooku mu sangu amaa bu dañ ko mbéj mu génne mën nii du sangu ndax loolu du bànneex dañ ko ñoppati mu génne mën nii du sangu ndax du bànneex dafay xalaat ba bopp bi fees mu génne mën nii du sangu ndax loolu du bànneex dafa doon xasan yaramam am na ci bànneex ga génne mën yu du sangu ndax bànneex boobu nit daawul ci génne mën yu nit ñi bànneex ba ñu génne mën yu mooy bànneex bu góor di am ci jigéen wala bu jigéen di am ci góor ak ci loo mën a yëg bànneex ba moom da ngay sangu même bu nit ku doon xasan bu muy yëg ci jigéen moom la nekk di yëg ci yaramam bu génne mën de day sangu te maanaam bu dee bànneex ab xasan rek lay mu génne ci mën yu dañ naan feebar waroo sangu kon noonu la amma nelaw moom saa yu mën yu génnee rek borom day sangu parce que nit mënu takk ay xaalam ci nelaw xataa bu géntoon ñu di ko dóor mu génnee mën yu dafay sangu ci nelaw kon nelaw moom bu gisee ne tooy na rek tubay ji tooy na daal tax na mën yu daal na sangu ci ak nu ko mën a génne dina dafa gént ñu koy dagg paaka mu génne mën yu sax day sangu dégg nga xëy na kon nelaw nun ci mën a génne mën ñu dafay saw li xaw yi rasul ngir wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne innamal maawu naka ndox minal maa yi ngir ndox moo koy waral minal maa yi ngir ndox la ndox mooy waral ndox maanaam ndox mooy waral laal ndox ko tënk loolu la yonent ay al ixtisaaru sangu mine al ngir génne mën niira mooy innamal maaw minal maayi innamal maaw na ko ndox minal maayi ngir ndox moo koy ndox moo koy waral ma innamal maaw na sangu ci ndox minal maayi mu mu ngi jugee ci sab génne mën muslim laakin waaye nag isa nazara bu wàccee al mën yu mën sabilil marad ci yoonu feebar bu dee dafa feebar génne mën du sangu doona lëzatin ci lu dul bànneex foo ku moo atteem xukkumul boow di atteem tuur ndox la raxas rek moo ci war waaye du sangu dana yàq njàpp nag walaa yajibu du war minu ci moom alxuslu sangu walakin waaye nag yajibu dana war minu ci moom alwudu njàpp bu dee mën nii bi feebar ko génne dana jàpp waaye du sangu lay tegtal ba mu ne moy xadis ibnu abbas faan mujahid jëlee nañ ci mujahid radiyallahu anhu yàlla ko yàlla gërëm xaala mu ne bay naa nax nu ba nga xamee ne ñun asaabu ibnu abbas taalibe ibnu abbas ya xalaqun ay géew lañ fil masjid ci jàkk ja ñu nga géew ci jàkk ba ñun àndandoori ibnu abbas ya mooy taawus dafay wax ña fa nekkoon ak saïd ibnu jubair ak ikrima xam nga ñii ci kàngaami borom xam-xam lañ bokk waaye nag masal mi réeroon na leen seen jël mbir wa ibnu abbas fekk ibnu abbas qaayamun aji taxaw la yusalli di julli Ibn naa a ngi julli ñun ñu ngi toog istisaase waqafa taxaw na alay naa suñ kaw rajulun góor istisaase benn waaye ñëw di laaj fa xaala mu ne hal min muftin ndax am na ku may ubbee maanaam ndax am na ku may tontu ci sama masala fa qul naa ñu ne ko sal laajal fa xaala waaji ne indi nag man kullama bultu saa yu ma ndox ndox tabiawu topp na ko almaawu ndox addaafiqu ba aji jañu saa yu ma ndox rek man yu day génn قلنا ñu الذي ndox mi nga xam ne yekkuñu dana nekk nu ci moom al wala du doom xaal mu leen ne am waaw saay mu tuddee ndox ndox mi doom di عليك ورنا الخصوص سام نم نم يوكل نقول نعم رفعم فوالا مدد أرجل غورجي وهو تفك مم يرجو مم عند دلنا تمنا نيو إن الله وإن الله يرجو أي يقول مم نان إن الله وإن الله يرجو منا موسى بدك دلنا نفسه سنك مم رفعم ديمتي وعجل mu gaawee ibnu abbas ibnu abbas fi siraati si julle ibnu abbas gaawee julli gi ngir tontuwaay ba mu sëlmale nag su ma xaal topp mu wax ne kirima mu ne kirima alayya bi rajuli andil ma waaj wa aqbala mu jublu alayna si ñun yaani lu mu ne ma ibnu abbas ibnu abbas ne ko andil ma waaj dam toog a gaañe nag fa qaala mu ne araaytum ndax gis ngeen maa aftaytum la ngeen ubbee bii ci moom haasa rajula góor gii han kitaabi laay ndax ci alquran ngeen ko jëlee ci téere bi yàlla bi xul naa ñu ne ko laa déedéet xaala mu ne faan rasulillahi ndax ci yonent yonent yàlla bi ngeen ko jëlee xul naa ñu ne ko laa déedéet xaala mu ne faan asaabi rasulillahi ndax ci saxaaba yonent bi ngeen ko jëlee sallallahu alayhi wa sallam xul naa ñu ne ko laa déedéet xaala mu ne amma kon ci fan ngeen ko jëlee ay fa amman amma mooy fa amman waaye léegi kon fu ngeen ko jëlee xul naa ñu ne ko anda ina suñ xalaat قال فلذلك لولو قال وانا رسول يونت bi sallallahu alayhi wa sallam faqihun benn borom xam-xamu fiq waahidun benn faqihun waahidun benn borom xam-xamu fiq maanaam kenn ku dégg diine dégg diine fii lañ ci nam rek ashaddu moo gën a të ala cheytaani cheytaani min alfi abidin si junne jaamu ko yàlla mu ne lii moo tax yonent ne kenn ku dégg diine moo gën a naqadi cheytaani junne jaamu ko yàlla nga jaamu ko yàlla moom da ciy boole lu ci ba dugal ci lu yàq sax lu baax lam noonu def waaye ki dégg diine lu ci bokkul mu ne bokku ci daf koy xam wajaa mu dikk arajul waa ji fa aqbala mu jublu alay ci moom ibnu abbas waa ji ñëw na ibnu abbas ne ibnu abbas jàkkaarla moom fa xaala mu ne ko araaytu ndax gis ne ida kaana bu nekkee zaalik loolu min ka du jugee ci yow atajiru ndax da nga yëg shawatan bànneex fii qubulika ci sa kanam xaala waa ji ne laa déedéet ibnu abbas ne ko loolu nga wax ne mooy génn ndax buy génn dangay ngay yëg bànneex mu ne ko déedéet xaala mu ne ko faal tajidu ndax da am xadaran bàyyeeku fi jasadika sa yaram ndax sa bi yëpp day bàyyeeku nga xam ne ni daanaka dafay tayal nit ku sax lu jëm ci jigéen xaala ne laa déedéet loolu dalum xaala mu ne ko innama haadi naka ni abridatun abridatun ak tooy tooy la tooy tooy yu jus yi que dana la doy minu ci moom al wudu jàpp mu ne ko tooy tooy la sa yaram mooy génn ndox la rek ay rutubatun tooy tooy la ba di li ko sa loolu mooy abris yàgg fii que dana la doy minaa ci moom al wudu jàpp Ibn ko loolu bu génnatee demal jàpp ji rek waaye waroo sangu ndax feebar la gis nga ñii nag nañ seen xel waaye ay moo tax Ibn leen bu baax nekkuñ ku toog rek xool noonu rek tontu li nga mais ñu ngi ak Ibn Abbas takkoog moom ñu ngi jàng gisuñ nag texte bi ci gisuñ ko ci sunna gisuñ ko fenn ñu jàpp ci lañ jàngoon rek mooy ku génn mën yu da ngay sangu ndax gisuñ leneen lu dul loolu loolu waral Ibn Abbas yeddu leen ndax dañoo cosaan lañ jàngoon waaye wax sa si ci diine moom loolu lu ñaaw la xaadaali way daaraa bu gisee naf soo boppam annoo ne moom ixtalama gént na ba baada an istayqasa gannaaw bu mu xeewoo lam yejit amut man yéen man yu fi siyaa bi ci yérem falaa xusa di rek sangu ale di ko war bu fekkee dafa gént génne man yu mu xeewu waaye gisul ci yérem benn man yu kooku du dara géntu génnuwu dara kon du sangu ama bu fekkee dafa gént génne man yu nag xeewu gis man yu ba dafay sangu ಬಾಗಿನ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ದರಗಿನ ಸಂಗು لأن رسول الله يونس صلى الله عليه وسلم قال وانا إنما الماء ونكن دخ نعم نكا سنغون دخ من الماء ينجد جن ينضخ في ورا أي إذا لم يجد بأمود ماء ندخ فلا يقتصد بسنغو وقد تقدم جيتنا هذا الحديث بالحديث وإذا رأى نمجدنا في صوبي كير من ين من يو ولم يذكر فاتلفون انه نم احترم جنتنا جسنا من يدال تيرم بو خمو كان لكو تاك وجب ورنا عليه موم ان يغتسل مصلى كون كو نيو فك سي من نيو ميم بو خمو كان لكو تاك دا فا ان تحقق بو كو هوري ان هذا المن ني من ني بي منو من جوي تي موم لول نك بام لاخ دا وورول كو جو لاخ دا دم دال بو فك نيت بو فك سي توبيه من ني بو waaye nag mooy boo jàppee ne mën yu bi ci yow la jógee mais bu fekke tuma bi da nga ko abaloon keneen mu faraan ak moom ah ñëw nga gis ci mën yu da ngay jàpp ne wu jógeewul ci yow kon doo sangu booy sikk sàkk tamit ci yow la jógeem déet ndax kat sa tubay la gisoo keneen ku ko sol ba léegi da ngay sangu ndax kuy sikk sàkk liñ génne mën yu daam du ma yu dafa war a sang kon buñ gisee ci yére mën yi bu ci moom la jógee nga dem sangu ci bu nit gisee ci moom mën yi bu wow muy sikk sàkk ci mom la jógeem déet na dem sangu ci ci kaw ci kaw bu fekkee sangu wutoon ci diggante ba amaa bu dee na ci diggante bi sangu farat du sanguwaat dafa xool tubéem gis ci mën ni boobu waaye ba mu simmee tubéy léegi gis na ne jote na ba sangu jiwaat kon du sanguwaat da sangu ñaaram yow bu ne bu jëkk waaye julli yim woon ci keroog ba mu simmee tubéy ba maanaam keroog ba mu mujjee nelaw ak tubéy ja ba ba muy sangu julli yooyu da koy baamuwaat bu fekkee sanguwut benn yoon it day xool kañ la mujjee nelaw ak ba xeew ak moom kañ la mujjee xeew ak ba ba ba muy sangu julli yooyu mu baamuwaat kon ñaari atte am foofu tubéyam taq na mën yu yéreem taq na mën mu jàpp na ci moom la jógee wala mu di ci sikk te fekk sanguwaat na farata ci diggante ba mu xeewoog tubay jooju ba mu mujjee xeewoog tubay jooju ak ak ba mu koy fàttaliku ba mu gis man bi sangu na ci diggante bi du sanguwaat waaye diggante ba mu sangoo ba mu ba mu sangoo diggante boobu julli ko julliwaat da ko dafa gis yére mën yu woow wala mën yu rek te sanguwut benn yoon ba mu mujjee xeewoog tubay jooju ba ba gis mën ni bi sangu si benn yoon foo mu dem sangu jowaat xool nag kañ la mujj xeewoo ak tubéy jooju booba mi gis mën ni boobu jullium julliyoon ci diggante bi mu baamuwaat ne ko lu tax mooy li xawle Aïcha da ngir waxe Aïcha radiyallahu anha yàlla ko yàlla gërëm ne sa ala laaj su ila laaj nañ annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ana rajuli ci góor goo xam ne yejidu dana yëg al balala tooy tooy wala yëzkuru waaye fàttalikuut ixtilaaman gént moom daal gis na ne tubéyam tooy na xamu fu mu ko génte xaa yonent ne na sangu rek waa ne rajulu ñu laaj ko góor goo xam ne yaraa dana gis andoo ne moom xad ixtarama gént na wala mu jitte amut bala lan tooy tooy gént na di sëy rek wala gént na génne mën yu waaye tubéyam tooyut ndax dana sangu xaala yonent ne laa xusla di sangu ala yi di ko waat ndax moom génnu dara fa qaal mu wax ummu ala marati ndax war na jigéen intara nem gis na zarik loolu xusul sangu jigéen bu géntee génne mën ndax dana sangu xaaral mu ne ko naam waaw jigéen daal su gisee mën yu dafay sangu ndax ina man nisaaw naka jigéen ñi shaqaayiqu rijaale xaritu góor ñi lañ maanaam genn wàllu góor la li war góor rek moo ko war axajoo gën na ko ahmad ak abu daawud ak tirmisi bu daa qaama nem jug na min naw mi ci nelawam summa salla topp mu julli summa tabayyana topp mu leer baada zalika gannaaw loolu annoo ne moom kaana nekkoon ne muxtaliman daa ji gém fa lay war na ko an yoxede mu mbaa mu asalaatu julli gi ba mu jullee mu gis moom géntu na ba génne mën ci biir nelaw ya julli ga dafay sangu baamuwaat julli googu kon na jàpp ne jàppal ne saa yu la sangu waree nga fàtte ko ba julli soo fàttalikoo na nga sangu ji julli yi nga julli woon yëpp da nga koy baamuwaat moom laa la wax léegi waja salla nem julli na waxtan benn waxtu aw waxtay wala ñaari waxtu su ma wajade topp mu gis asaral mën yu jeexiti mën yu fal yaxsibu na ko konte min axiri nawmatin ci mu jëg nelaw naamaha yem nelawoon wal yu it na baamu al waxtu allazi waxtu yi nga xam ne sallaahu julli na ko xabla nawmatin axirati njëkk nelaw yu mujjee su fekkee dafa julli ay julli xool gis mën yu ci moom dafay xool kañ la mujj nelaw kañ la mujj nelaw diggante boobu booba muy gis mën yu bi dana sangu ba pare julli yim ko julli woon yëpp mu baamuwaat ko bu dee sanguwutoon ci diggante bi bu dee sangoon na ci diggante bi nag diggante nelawam yu mujj ya booba muy sangu julli yim fa julli woon da koy baamu waaye du sanguwaat bu fekkee nag mën nii bi gisut ko ci yaramam da koo gis ci yéreem te bokkut ak yére bi mu sol dafay xool kañ la mujj nelaw ak yére boobu diggante boobu boobu may gis mën niyu julli yam fa julloo yëpp da koy baamuwaat te dana sanguwaat bu dee sanguwutoon ci diggante bu dee sangu woon na ci diggante bi nag danga naan bam nelaw yi mu mujj nelaw ak yére ba booba muy sangu diggante boobu julli yooyu lay baamuwaay du sanguwaat kon mën niyoo ngoogu dafay waral sang bu génnee ci bànneex buñ ko baxo comme niñ ko jangon ci fawaakul kul dawani ñaaral bi moy iltiqaul de nga xitaanay ni ak ñaari awraya faisal taqaanam dajee al khitanani ñaari awraya khitanu rajuli awray góor wa xitaanul marati awray jigen wajaba warna al ghusl sangu wa maana iltiqaihima lañ namm ci seen ak dajee taxyibu xasafati rajuli mooy dugal bopp sakaraab góor fi farji imraatin ci yër yëru jigéen mutiqatin bu attan lil jimaa yi ñeel sëy góor bu sëyeeg jigéen ju mën a sëy kon nga déggee ci ne bu sëyeeg jigéen joo xam ne ni ku sëyeeg moom danga koy gaañ waaye mënul sëy du sangu xanaa mu génne mën góor bu sëyeeg jigéen ju mën a sëy moo xam ca demukaay dus ba la moom te loolu ñaaw na loolu yàlla xaraamal wala ca awra ba la seeg moom loolu la yàlla daganal ci koo xam ne nii dagan na ko wala boog mu seeg góor wala mu seeg xaj wala mu seeg mbaam yooyu it na lool kum mën a seeg daal ak fu mu mën a seeg moom dafay sangu xanaa mu seeg lu mënu sëy bu seeg loo xam ne nii mënu sëy moo xam nit la wala du nit nga xam ne ku seeg moom da koy gaañ rek soo boobaa moom du sangu waaye bu sëyee ku man sey mat na mu kalaf mat mu kalaf moo ci yem dafay sangu sawaaw moo xam anzala génne na mën yu am lam yunzil wala génnewul mën yu sëy bi rek mooy waral sangu moo xam mën yu génn na wala génnut nga ne ko luy tegtal buy wane ne sëy rek dafay waral sangu même bu fekkee mën yu génnut mu ne xaala wax na rasulullah yonent yàlla bi salla yàlla doolu xew allah yàlla alayhi si moom wasalama doolu ko musal mais ja sa bu toogee rajulu góor bayna shu'abiha ci diggante cëli jigéen ya cël nem ci na moom mooy ñaari loxo yi ak ñaari tànk yi al arbaa yee ñeent summa jahadaa topp mu xëcc ko ci boppam faqad wajaba war na alxuslu sang yonentu dafa am teggin lislaam teggi teggin la moo tax la damay jàngale moo tax ma ñaaw làmmañ ne ko ne ko ne ko nekkoo ci lislaam jàngale woo moom lislaam ab jàngale mayul la ñaaw làmmañ bëgg a jàngal nit ñi may la droit ngay ñaaw làmme da ngeen gis fii ci téere yi téere sunna yi kersa kersa ba tey buñ naan la diine ji amul kersa mooy situation bu mën a xew da ko war a laaj mais nag naka nga ko war a laajee laaj bi nag na rafet am na sax ñoo xam ne dañuy ruus dem yónnee laaj ba ñoom waaye ñoom dañ ko laajal direct seen bopp hmm? kon kersa si la bopp góor bu toogee si diggante ñeenti cëru jigéen mooy ñaari loxo yi ak ñaari tànk yi xëcc ko mu ñëw ci moom war naa sangu yonent li mu bëgg wax mooy bu jotee moom rek war naa sangu maanaam awrab góor bi bu duggee ci awrab jigéen bi rek sangu war na mais xoolal nu mu ko nu mu ko guddalee ndax teggin ne góor bu toogee ci diggante ñeenti cëri jigéen yi su ma jaxadaa mu xëcc ko faqad wajaba war na alxusu sangu rawaaw sowna ko al buxaari bu muslim muslim an abi hurayrata jële ko ci abu hurayrata wa rawaaw sowna ko muslim wazaada yokk na ci muslim wa in lam yunzil di la génnun muslim muslim nee bu joteeg moom di la génnun mën yi dafay sam hadis muslim bi yokk na ci loolu wa maanaa jahadaa maanaa jahadaa mooy jazabaha xëcc na ko ilay jëm ci góor gi am góor gi xëcc na jigéen di jëm ci boppam woo loolu kinaayatun la an mu alajata idxaali ci jéem a dugal maanaam joteeg rek la bu ci ci coonaab dugal ga waan abi Moussa jëlee ci abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu yàlla na ko yàlla gërëm qaala mu ne qultu wax naa li Aïchata ñeel Aïcha radiyallahu anha gërëm Allah yàlla naa ci moom ne ko inni inni naka man uridu damaa bëgg ana as'alaka man laaj laan ci ci dara wa ana man astahi damaa rus minka ci yow abu Moussa al-Ash'ari ne ndey Aïchata man de am na lu ma war a laaj waaye damaa am kersa ci laaj ko rek fa qaala yonent ne ko sal laajal wala ki kon ndey Aïchata ne ko sal laajal wala tastahi bul am kersa أنا أنا لك من أمك أمك سيالة من سيالة رك يا من جر من هو بجوز أي أقول كي أسكت أقول من سيالة من قال فسألها ملاذك لا تهني رجل يجور يخشى دنا جوتة من دنا جوتة سخنام أكون من جوتة نك ولا ينزل واحد جن من يو أي جامع دنا جوتة دون أن ينزل جن من فقالت لا يعيش وقت عن النبي جل شيء أنت بسلاسل نقال ينت منين إذا أصاب بوجته الختان أو راي جور الختان أو راي جيجين فقد وجب ورنا الغسل سان قون كي تجن ختان مي قرف كاي قرف كاي بوجته قرف كاي سان ورنا لب تجن الوحلا كون حديث يجب دفع جانجل نجته رك بو أمي من بمن يجن سان ورنا رواه سونك أحمد المالك wa xeyruhuma ak kudul ñoom ñaar bi alfaasin ci ay baat mutaqaaribatin yu jege wayara gis na jumhurul fuqaha yi mboolam borom xam-xam yi anna rajula na góor law xayyaba bu dugaloon xashafata zakri yi bopp sakram fii dubul unsa ci gannaaw ak jigéen alayhi war na ko wala war na jigéen ji alxusu sangu góor bu sëyoon ak jigéen ca gannaaw ga tuurukaay demukaay dus gi dafay sangu jigéen ji dafay sangu kon nga dégg ci ka sëy ak kañ seeg yëpp dañuy sangu waaye jigéen jën seeg balaa moo sangu ka sëy mat mu kallaf jigéen bu dee góor moo seeg moom fekk góor gi masooragul matagul mu kallaf dina góor gi xaw naa mage nii waaye matagul mu jigéen ji du sangu xanaa mu génne mën ni waaye bu génne mën du sangu loolu bu fekkoon nag jigéen nag bàyyi ma mu sëy ak jigéen ji ak lu mu mën a doon day sang bàyyi ma man mën naa sëy wala matagul sëy jigéen ji day sang ndax awraay bàyyi ma ñaareel dafay rëy moo tax bu sëy ak jigéen dafay sang mais góor goo xam ne nii nit la matul mu kalaf bu sëy ak jigéen du sang ki sangu di war tamit mooy ku mazur képp ku mazur gur moom sangu waru ko waaye bu dee digal lañ ko julli dañuy sopp mu sangu kon buñ naa la sangu war na ci sëy mooy ku masoor ku mat mu kalaf ku masoor gu sangu waru ko du sopp nañ mu sangu góor bu jàppoon goo xam ne matul mu kalaf am jabar dem seeg jabaram jàppale yàquut parce que mu sangu waru ko jigéen nag moom mooy ko xam ne góor ku mën a day sangu ba mu des koo xam ne nii mënul sëy jigéen nag kenn rek lay seeg sangu mooy ku mat mu kalaf bu ñuy wax jigéen mooy kañ seeg góor bu ñàkkee fayda bañ seeg moom jigéen la rek kooku da dafay sangu bu dee sëy moom mën na mu ko def loolu mooy mbir mar ati sëy jigéen fi duburiha ca gannaawam xaraamun lu xaraam xaraama si yaati comme ni nga xam ne dana dikk fi mu rabaandu ci ca gannaaw ba bo yemul ci xaraam sax dafa boole xaraama falte in xitaaw xay di daggug deretu mbërëg wa nifaas ak gësin mbërëg jigéen a koy baaxab jigéen la mu di ko gis ak weer waaye du jigéen ñëpp force weer bu nekk dañ koy gis jàngu nañu atteem ci yeneen yi ba ni faasi gësin mooy deretu njuréel gis du sangu waaye bu daggee dana sangu nga xaw li laa ngir wax yàlla taala kawana wala taqrabuhunna bu leen leen jege attaay tuhunna lu mooy ñu laab alquran def ne jigéen jigéen ñi fekk ba ñu laabee bu na ngeen leen sori fekk ba ñu iza tasaxar na laa laabee faatuhuna na ngeen leen dikkal minay su amarakum fam leen digal allahu yàlla wa ahkaamul xayd atte mbërëg wa nifaas ak gësin sa taati dana dégg fi baabiyaa ci buntam incha allah nuñ somne yàlla moom dina jàngale li aju ci wàllu mbërëg ak gësin ak lor yi nga xam ne nii joteeg jigéen fekk mu ngi yore régal dina ko waral yooyu yëpp dina ko jàngal dina dugg ci wàllu médecine foofu nag bu duggee moom docteur yee ci ëpp xam-xam almawtu dee dafay war a sangu fa iza maata nem deena almuslimu julit bi wajaba war na taxsiilahu sangu ko ala man xadaruhu ca ña teewee nañ néwam bi ijmail muslimina ci dëppoog julit ñëpp julit bu génnee àdduna ñëpp dëppoo nañ ne ña teewee néew boobu maanaam ña nekk ak moom war nañ ko sang illa shahida lu muy aji shahid ku dee ci toolu xare toolu xare lañu wax ne waxuñu yeneen comme lab wala boog jigéen ju am doom dee ak yooyu ku dee ci toolu xare lañu wax fay noonu ak moom laayu laayu xassalu duñ ko sang ba li fi nekk yu ko fanu dañ koy sang woyu du fanu ñu suul ko fi dim fii dima yi ci deretam ja li am na dima ahu ndax deretam saw fa tashadu dana seede lawu ñeel ko alhamdulilah fa yàlla yowmal qiyaamati ndax deret ji mooy nekk preuve bi war ne kii dafa dee ci toolu xare di ko seedeel ci yàlla ne yàlla deret jaa ngi ba léegi dañekut moo tax ko noonu bul di ñu deret wayekun dana nekk laxaa ñeel ko kat atiya ba bu gën a atiya bu bu gën a teey min riixil miski ci xet gët deret jooju bu dekkee mooy gën a neex parfum wasayaati dana dikk tafsilu hada teqale lii fi mawdi ci barabam incha allah num som yàlla bu ñu yeggee ci wàllu ku dee ci toolu xare da ci aju yëpp dana ko andi kon wax na ne mën yu dafay waral sangu jotee awara ak awara dafay waral sang mbërëg mu dagg dafay waral sangu wala gësin dee dafay waral ñu sangu jullit bi sangu yëpp benn sangu la ne muy waxee ne ñu sangoo moom moom sangu yëpp benn la juróomeel juróom la waxoon ñooy waral sangu alkaafiru yéefér isa aslama bu jébbaloo wajaba war na ale ci moom an yaxtasila mu sang ci bunt bi nag ngay gisee gën a dëgëraayu ngiram abu xanifa bi mu wax ne ndox bu ko lu laab soppee du ko yàq xam nga masala yim andi woon yëpp lay yim andi woon yëpp laaj na seetaat ndax abu xanifa lam sukkandiku woon ne lu ko yàq la ci borom téere bi andi woon mooy nit ku génn àdduna yonent ne sangu leen ko ndox ak déem benn waaye mën naa wax ne pourtant am ndox mu mujj bi lañ ko sangoo ndox ak déem mais du ñàkk ndox mu set nit mën naa wax loolu waaw ak yonent bi sallallahu alayhi sangu ci ndox moo xam ne nii amoon na paan bu am ay mooñ tuuti mën nañoo wax ne mooñ bi soppiwul ko mais fii nag moom da ngay gis ku jébbalu yonent ne ko jëlal ndox ak déem nga sangoo dëgg yàlla loolu moom mën ñoo wax ne xanaa ñaari ndox lay sangoo nag moom ku jébbalu moom dugg ci lislaam li tax muy sangu mooy sëy gëm loon sëy yore janaaba loolu moo tax muy sangu kon bu ko yonent bi sante mu sangoo ndox ak déem mu ngi dund ah, day mel ne lu laab du yàq ndox ci ngirëm Abu Hanifa la waaw al kaafiru yéefar isa sama bu jébbaloo wajaba war na ale ci moom an yaxtasila mu nga ne ko luy tegtal ba mu ne bi dalil xadis xays bun asim ci tegtalu xadisu qais ibn asim annoo ne moom qays aslama jébbul fa amaruhu mu digal ko annabi yunus sallallahu alayhi wasallam an yaxtasila mu sangu bi mayen ci ndox wa si ak dem ne jël ndox def ci dem sangoo ko la ko yunus ci wax kon lu lab du yàq ndox nam lu laab rek mëna mën a sango rawaaw soo nag al buxaari muslim ak muslim wa ghayruhuma ak kulu ñoom ñaar ta xadis bi hadith bu dëgër la yonent ci bukhari ak muslim ak yenen téere dina indiwaat sax tegtal bu xaw a mel noonu wa hadis abu hurayrata ak hadis abu hurayrata radiallahu anhu yàlla ko yàlla jërëm anna sumaamata alxanafi naka sumaama alxanafi usira jàpp nañ ko ca xare ya wa kaana mu nekk annabi yonent sallallahu alayhi wasallam yaxdu di xëy ilay jëm ci moom fa yaqul mu naan ko maa indaka na lu nekk fa yow yaa sumaamatu ay maa xaaluka na nga def loolu lay firi wa maa shaanuka lan mooy sa mbir wa maa ra'yuka lan mooy sa gis-gis fii maa sirta ci na nga mujjee ilay jëm ci moom xaal bi nga mujjee loo ci gis suba mu doon wax ju rafet na ko in taqtul boo ma rayee taqtul ray nga za damin borom deret maanaam rey nga koo xam ne war nga ko rey parce que reyal na leen nit ay taqtul da nga rey rajulan góor goo xam ne alayhi war na ko saarun ak fayeku lakum ñeel boo ma reyee nga koo xam ne war ngaa fayeku ci moom xam nga am na teggin mooy tam nun boo ma baalee tam nun baal nga laa shakirin ci kurey gërëm بوم بالي ما سنت لغرم ايوا انا من شاكن اجي غرم لا لكن يلا وين تريد بو بغي المال على النوتي كني جوخ لي ملي مو ماشي تو لولا نيه بو فكي نغا بغ ما جوخ لا على ندير جيت سما بوب لو بغ ما جوخ بو كو يونت لا جان نغا ديف لي لا رون واخ فك بو يونت كون كي باس لير الاسلام وكان نيكون اصحاب رسول الله صحابه يونت بي صلى الله عليه وسلم يحبون دي بغل فداء جوخ صحابه نيم نيم بغل ما مو جوخ خالص دا بغل ما يفجر waaye rey ko yowul ne benn dee baal ko it gënul leen wa yaqulu ñu naan maa nas naw lan la ñuy defee lan la ñuy defee bi xatli haada ci rey kii kii buñ ko reyee lum ñuy jëriñ fa mara mu romb alay ci moom rasulullah yonent yàlla bi salaa sallam fa aslama mu jébal yonentu romb après suma mortu daal di tuub fa xallahu mu tekk ko wa baasa mu yebal bii ci moom ilaa xaayiti abi talxata mu yóbbu ko ci miiram abu talxata ba ay bustaanihi toolam ba tolo mu talxa la ko yob wa amaru mu digal ko an yaxtasila mu sangu faxtasala mu sangu lañ ci bëgg a jàngee rek mooy dégg nga ku amee ku dugg ci islam dafay sang wa sallamu jula julli rakkaate ne ñaar rak fa qala mu wax annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam laqad xasuna rafet na islaamu axiikum islaamu seen mbokk mi maanaam jébbalom jébbalu gu rafet la maanaam julli dëgg la rawaaw sunan ko ahmad ibn abdurrazzaq ibn bayhaqi ibn khuzaimah ibn hibban waasloo cosaan la nag cosaan xadis bi ñu ko jëlee ci saxiixayn ci Buxaari ak Muslim waaye wala si nekkul fiihimaa ci Buxaari ak Muslim al amru digle bil ixtisaari ci sangu woy na fiihimaa way na maa fiihimaa nag nekk na ci tée ñaari téer yooyu àndoo ne moom ixtisaara sangu na yeneen xadis dañ ne yonentu moo ko digal mu sangu amma Buxaari ak Muslim la fa ñëw mooy ne sangu na rek waaye waxuñ ne yonentu bi sallallahu alayhi ko digal mu mu sangu kon foofu gis nga fa la dëggal ngiram abu xanifa da jàngaat ci sangu janaaba it luy dëggalaat loolu wane ne ndox mu soppeeku ak lu laab du yàqu ndox jàppal tegtal bi yeneen tegtal yi dafa jamtaru mën naa ndox yu bëri la am du ndox mu bari nangam nangam waaye bii moo gën a leer ak beneen bi wara a ñëwaat ci kanam faraayidu farataay sangu yi ñaata la juróom-ñett wa ma faraajul xusli waaye farataay sangu yi fa sabaatum jurom ñaar la bayna muttafaqin diggante lañ depp dëppoo yaa ci mom bu muxtalif ak lañu wutee fiyaa ci mom def ko jurom ñaar nak mo gën parce que mo jurom ñett la indi wa jurom ñettel ba rak ñun lañ jang ci ngir malik malik defu ko farat te moom dafa boole ci ñaan malik yi dañ ko def farat maanaam ñu yokk ko ca su fekk moom andiw ko parce que fi jurom ñaar la wax aniyatu mooy yéene farata la ci ñan ci Maalik ak Shaafi waaye moom fardun farata la àndal Maalik yi ci Maalik wa Shaafi lañ la waxoon yéene lañ la waxoon ci wàllu yéene ndax farata la am du farata ci mbiram jàpp noonu rek la demee sang Maalik ak Shaafi ñoo ne farata la wa sartu sihaatin saataay wéral la àndal Xanaabila waa Ahmad ibn Hanbal ne ne yéene moom mënu ñàkk ba amul du baax waaye du farata teqaloo leen diggante sart ak farata wa sunnatul muakkada sunna bu fadala àndal ci waa Abu sunna la bu dëgër rek waaye du farat maanaam bu boo yéenewu tamit sangu mi baax na kama tax dama comme nu mu jiite woon fi wudu ci jàpp wa takun dana nekk aniyatu yéene xen na awale udduwin ci cër bu njëkk yox salu boobu danañ ko raxas cër bi ngay njëkk a raxas fa nga war a booy sangu moom cër bi ngay njëkk a raxas rek fa ngay yéene ndax sangu moom cër yëpp farata la wa dana jublu al muqtasilu aji sangu bi niyati ci yéeneem rafa xadasi yëkkati toj alaakabari bu mag li ibaati ma ngir daga na la nga xam ne kaana nekkoon ahadu su toñ ma alakbaru bi gën a mag maa neen tere minu ci moom fi nga war a yéenee mooy cër bi nga war a njëkk a raxas foofu nga yéenee booy sangu nag da nga yéene yëkkati toj mu mag xam nga janaaba toj mu mag la dégg nga hmm? maanaam da nga yéene yëkkati toj mu mag ngir li mu mag mi doon tere mu mën laa dagal wa niyetu yéene maxalloo barab ba alqalbu xol la kama arafta comme ni nga ko xamee fi wudu ci njàpp waaye moom mu xaari ne dafa lënkaloog lil fi'li ñeel jëf dafay ànd ak jëf da ngay yéene ba pare sangu bi maanaa maanaa bu mooy anal junuba naka ko amee janaaba laayen wi du yéene alxusla sangu <coughs> sangu ilaa inda xusli ilaa inda xasli awali aduwin lu mooy jamono bi muy raxas njël benn ak min ahdaa yi ci ay cëram ko amee janaaba fu muy buy raxas cër bu njëkk ci bi kon yéene googu farata ci Maalik ak Shaafi mën ngaa wax ne sax ci Ahmad ibn Hanbal ndax sàttay wéral la waaye ci Abu Hanifa sunna la mën naa ñàkk ñaareel ba taamimul jasadi matala yaram ba bi maay ci ndox woowu moom fardun farata la bil ittifaaq ci dëppoog borom xam-xam yëpp ñoom ñëpp dëppoo nañ ne sa yaram bi yëpp nga laalale ko ndox ba yaram bi yëpp tooy kooku moom farata la kooku farata buñ dëppoo la li qawli ngir waxe yàlla taala kawe na ne yaa ayyuha alladina amanu yéen gaañi gëm yàlla laa taqrabu bu leen jege asalaata julli wantum te fekk yéen sukaara way manni ngeen hatta taalamu bata ngeen xam maa taquluna la di wax wala junuban du caageen ngeen yore janaaba bu julli fekk yéen a janaaba illa abiri sabilin dégg nga hmm? Hmm? wala wala bu leen jege julli junuban fekk yéen a ngi nga janaaba hatta taxtasilu lu may ngeen sam illa abiri sabilin lu may tukki lu may ngeen jéggi mooy tukki taamu leen ndox su boobaa tim wax bi dafa yeggut laa ji moo yeggut waaye laa ji boo dafa ne kuy tukki taamu ndox ak yooyu ñooñu dañuy tiit kon alquran nee na ku mandi bum julli lu mooy ba mu jamono boobu sàngara daganoon na waaye léegi daganatut ku yore janaaba bum julli fekk ba muy sangoo ata tax lu mooy ngeen sangu lu mooy kuy tukki amul ndox mën naa tiit wéy fisaalu sangu maanaaw maanaa ba taamimul jasadi mooy mata yaram bi maa ci ndox alquran nee na ngeen min manaabiti shaari raasi commencé si sax waay karaw bopp ba ilaa baatini xadamay ni ba si suufu ñaari ndëgg yi kama acharna comme niñ ko junjee suufu tànk yi ba ci kaw bopp ba ne lépp tooy kon matale yaram bi faratara bu ñëpp dëppoo benn farataango buñ dëppoo almuwaalaatu méngale kooku maalik rek ko farataal woyee moom tatabui xaslil xaslil aadaayi tatabuil tatabuil xaslil aadaayi mooy toppalante raxas cër yi odd wan cër baada odd win gannaaw cër maanaam bañ dagg sangu li loolu mooy méngale ci maalik xam nga boo sangoon toog tuuti rek dafa yàqu ci maalik bu yàggee tuuti bu yàggee nag laa wax maa ngi lay digg bi yàggut yàgg nangoo takk ci aada du yàqu nga toppalante raxas cër yi cër gannaaw cër mi ngi xëy ni ci lu dul ab digg wala ci lu dul taxaw loolu mooy méngale mooy bañ dagg sanguli min xeyri muhlatin ci lu digg boo xam ne yajib yajib yajib dana wow fiyaa ci moom al udu cer alladi bi nga xam ne xusee raxas nañ ko xabloo njëkk ko méngale ci malik mooy nga toppalante raxas cër yi rek cër boo raxas teg ci bu ci topp la ñuy bañ nag mooy nga raxas cer xaar ba mu nga raxas ba ci topp kon yow yaa canguma yàqu na boo raxasee dokk ga xaar ba mu nga raxas mbagg sanguma yàqu na ci malik waaye ci yeneen ñi yàquwut kon méngale mooy nga sangu mu dem bañ taxaw boo taxawee nag ba nga xam ne cër bi nga mujj wow bi nga mujj raxas wow na yow méngale woo sangu mu yàqoon ci maare kon wéyye moom méngale te taa bu mooy xaslil yi mooy toppalante raxas cër yi xuddu woon cër baada xuddu win gannaaw cër min xëyri muhlatin ci lu ab digg boo xam ne jifu dana mën a wow fiyaa ci moom al xuddu cër bi nga xam ne xusee raxas nañ ko xabloo njëkk ko fala win tasara bu xaaroon xattaa jëf ba mu wow alxudu wu cër wa alxudu wu cër wa fa xasala mu raxas allazi bi nga xam ne yëlihi topp na ca batale yàqu na xuslahu sang xusluhu sangoom ma bu fekkee dafa raxas ab cër xaar ba mu wow <clears throat> mu raxas ba ca topp sangu ma yàqu na waaye ci maalik waye moom méngale fardun faratala na maalik yee ci maalik wa sunnatun sunna la inda xeyrim ci ñu dul malik maa fil wudu comme ni ñu ko waxoon ci jàpp kon méngale du farata ci yeneen ngir yëpp malik rek la mooy topp maanaam baña dagg sanguma loolu méngale atadli ku ragg kooku malik rek rek la kon daal benn sunna bu ñëpp dëppoo maanaam benn farata bu ñëpp dëppoo benn lañ ci jàngale mooy yaram bi yëpp laal ndox atadli ku ragg woo moom fardun farata la indal malik yee fa malik sunnatun sunna la indal xëyrim ci ñeneen kama fi guddi comme ni ñu ko jàngewoon ci njàpp booy sangu man ngaa bañ a ragg ci yeneen ngiri mais ci malik foo nga ragg kon malik amaana la ñaari farata ñeent yéene matare yaram bi ak ndox dégg nga ak méngale ak ragg Shaafi amaale ñaar yéene dégg nga ak matale yaram beeg ndox Ahmad ibn Hanbal amaale benn matale yaram beeg ndox waaye moom yéene sarta wéral la ci moom Abu Hanifa amaale benn rek mom mooy matale yaram beeg ndox kon moom benn farata boobu daal la amaale Maalik am ñeent Shaafi ñaar Hanbal Hanbali benn Hanafi benn تخليل شعري قليل كرو عمر المهم بلدانا كان يارد ذلك ده يين موم شعر وير اللي جمع تخليل شعري قليل كرو كوكو تميت مالك رجلا موكرة فرط كون مالك من جرم بن لقولي ان روح يندب سلازم قليلو نغن قليل الشعر كرو وأنقو نغن ستر البشر تدربة فإن تحت كل شعرة لك نكنا شرون بيب كرو جنابة الجنابة yonent nee na na ngeen xalil karaw yi setal der ba ndax ron karaw gu nekk dafa am janaaba kooku Maalik moo ko jàppee farat mooy nga jañ ndox ma ba mu laal der ba ron karaw gu nekk dafa am janaaba rek am na ñu koy jam ñu koy jamee xadis bi nangam nangam fekk walaay na mujj ne ron karaw gu nekk dafay tooy xepp ak janaaba ak mën yu na mujj loolu de ay lu mën a mu asaru janaaba te am jiixitu janaaba law turikat buñ ko bàyyi woon la ada dana xeggale ilaa but laaneel xusli ci yàqu sangu ba borom karaw gu nekk boo ko bàyyee sangu ma yàqu na ndax jeexitu janaaba gaaw jëmmi janaaba nekku fa waaye la janaaba di waral man fa kon janaaba fa ci maana ganaa gisoon nit ki bu génnoon man yu raxas sobe si ba mu set wécc du teel ñaan ko da nga amee janaaba fan la ko tax kooku maanaa na nit bu ngelawoon dañ naan ko toj la nga ana toj ma fu mu ko tax waaye mais cëri njàpp yëpp toj la ne moo tax yëpp la war a raxas sangu na comme que cër yëpp nga war a raxas kon cër yëpp am janaaba waroon karaw yi tamit dafay am janaaba moo tax yonent ne na ngeen fexe yaram bi yëpp tooy ba ci ron karaw yi ndax roon karaw gu nekk dafay am janaaba maanaam yéexatu janaaba hmm? rawaa soo na ko an nasaayi kon gis nga Malik am na juróomi farat waaye ba léegi Abu Hanifa benn farata la mooy matale yaram Ahmad ibn Hanbal benn farata la mooy matale yaram ragg yéene sartaay wéeral la ci moom wa taxliilu xalil fardun farata la xenda malik ci malik bi dalil hada xadis tegtaroo xadis bii wa sunnatun sunna la xenda xëyrim fa kon malik am na ñett farata yoo xam ne gars sunna lañ ko jàppee mooy méngale ak ragg ak xalil karaw dégg almat mëretu galaxandikoo la sin saax ak solonda ko malik bokkut ca moom وهما يوم نار فرداني فرتنا يند بعد حنفية يند تبا أبو حنيفة ولا حنا بلا أبو أبو عمر بن حنبل كي كن يوم نور مايشان نار أغنية تير جرم بين الماء غير عندك جرم نار الماء سر عندك لول فرتنا تبا أبو حنيفة أك أحمد بن حنبل يند تبا يوم صح waye wu sunna tane ñaari sunna lañ yendal jumhuri ci mbolam borom xam xam mi men safi ci safi wal maliki ak maliki wa khairu ñu ñu boy sangu nga galaandiku sorandiku farata la ci Abu Hanifa ak Ahmad ibn Hanbal kon ñom ñaari farata dañ am manam man nga japp ne sangu mom Abu Hanifa ak Ahmad ibn Hanbal ñaari farata la ci gis moy matale yaram ba wala ñetti farata kon matale yaram ba ak galaandiku ak sorandiku ñetti farata la ndax yi bu nek ben kon Ahmad ibn Hanbal ak Abu Hanifa ñetti farata lañ am matale yaram ba ak galandiku ak sorandiku te galandiku ak sorandiku ñëpp dëppoo wuñ ca ñenn ci ñoom ñoo ko wax ñett yooyu lañ am ci farataay sangu dégg nga saafi yi moom sangu defe naa ñaari farata la yére ak matériel yaram loolu la la saafi am ci farataay sangu yére farata la ci moom ak matériel yaram fexe ba yaram bi yëpp tooy Malik moo ci am juróom moom dafa wax Malik juróom benn ndax bu mujj bi mu andi la ma gis ci téere Malik yëpp sunna lañ ko def mooy tasliisu saari tasliisu saari xalil karaw ñett ñettal karaw nga raxas sa karaw bopp bi ñetti yoon a ah kooku nag ngiram Malik téere yu bëri sunna ko jàppee jàppee wuñ ko faral ay xusluhu xasluhu raxas ko salaasa maraata ñetti yoon raxas sa karaw ñetti yoon mu ne woowu loolu fardun Malik yee fa Malik jar naa xoolaat ndax li ma gis ci téere Maliki yi mooy raxas sa karaw ñetti yoon sunna la boo ko ca boolee nel Malik am na juróom benni farat boo ca boole raxas karaw waaye man gisuma ko nag boo boolee raxas karaw ci farata yi ci ngiram Malik Malik am na juróom benni farata ci sangu yéene matala yaram wa mengale ragg yaram ba khalil karaw ay raxas bob ba ñet yoon raxas karaw gu ñet yoon juróom benn yi ñooy farataay sang yi ci malik moom farataam yëpp ñaar lañ ci ànd ak moom benn bi ñëpp dëppoo nañ ne moom na nañ moom ne farata la mooy matala yaram ba beneen bi mooy yéeneem saafee rek ci ànd ak moom xanaa Ahmad ibn Hanbal daanaka def na ko farata ndax sàtt ko rek Abu Hanifa bañ kon moom farataam yëpp daanaka gars yi dañoo bañ benn lañ ci nangu mooy matale yaram yéene Saafi fekk ci ko si na ibn xaw na ko ci fekk si ndax nee na sart la maanaam ñoo bokk atte bu ko bàyyee farataay sangu yi ci Maalik juróom-benn yooyu la yéene matale yaram ba méngale ragg yaram ba xalil karaw ak raxas boobu ba ñetti yoon boobu wax naa la gisuma ci farat kon jàppal juróom-benn yi mooy farataay sangu yi ca Maalik du ñëpp ci déppo ñaar lañ ci ànd ak moom mais matale ba ñëpp dëppoo nañ ci moom yéene Shaafi'i moo ko si fekk ci ne farata la Ahmad ibn Hanbal ne sa wéral la ñoo bokk atte bu amul baax Abu Hanifa ne moom bañ ne sunna la yeneen farataam yëpp gaa yi nanguñ ñu farata sunna lañ ko def ci ngiram Shaafi'i farataay sangu ñaar la yéene ak matale yaram beeg ndox jeex na moom loolu la na na yaram bi yëpp laal ndox rek ci saafi farata yi jeex na ci Abu Hanifa farataay sangu yi ñett la yéene galaxndiku soroxndiku jeex na ci ngiram Ahmad ibn Hanbal farataay yi ñett la neen ñeent rek parce que yéene daanaka farata la ko def ak matala yaram ba ak galaxndiku ak soroxndiku kon ku nekk yam jàppee farata ak yam jàppewul mu ngi noonu su boobaa la mu wax ne farataay sangu yi juróom-ñaar la am yuñ dëppoo ak yuñ dëppoowut boo ko teqalee juróom-ñett lay doon ndax boole na si xalil karaw bu fekkee yokkaluñ ko ko ci téere ba dégg nga ndax buy indiwaat sunna yi daf ciy boolewaat raxas karaw gi ñetti yoon maa ngi wax xalil raxas karaw gi ñett yoon bu indi sunna yi dana ko indiwaat te lool nee na farata ci maaliki yi waaye téere yu bëri ci téere maaliki yi sunna yi dañ ko boole gisaguma sax ku ko si def farata mën naa nekk nag هذا إن نريد الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته